asibilahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed san sul ñaara waajur san sul wasila Seexul Xaddim di leen nuy bu baax a baax di leen ziyaare te di leen bal ak yéen ñi nga xam ne saa su ne yéenay jàkkaarloog Waarwi TV nekk aralu si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool Waarwi TV nag nekk télé boo xam ne liggéey si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool rek mooy warugaram te saa su xëyee mu waar bi nga xam ca lay bay moom ca la ca nekk di ko bay tey jii nag ñi ngi fii ci janatul maxwa ci Baye Fall gi ñëw fii ci njabootu sëriñ Mbacke Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci kër gi leen ñëw ci ndogo yi nekk ñaar fan ak benn ci weeru koor 2021 fii nag nga xam ne fi leen taxaw ci bërëb boo xam ne macha allah bërëbum ñaanukaay la bërëb jaamukaayu yàlla la bërëb la boo xam ne dafa bokk si bërëb bi maam Cheikh Ibrahima Fall ndax fii ci janatu mun nee janatu Baye Fall ga rek ñëppay xam ne fii mooy bërëbu Baye Fall yi fi nag tey jii incha allah ci kattanu yàlla ak ci barke Cheikh dugg ci biir wan leen sikar si ànd na yéen wan leen ndogo yi naka la ko donga yi di defee naka la taaliba yi di naka la ko su tedd si nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi di defee ñu ñëw fi nag fekk fi njabootu sëñ Bassirou Fall alxuraan ndax sëñ Bassirou Fall alxuraan macha allah yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci moo fi nekkoon yàlla na ko yàlla defal ngëneel fa mu nekk yàlla na ko dàqal fi mu jóge ci ab xalifaam sëñ Ngoune Fall foofu lañ fi ñëwee di ci jaajëfal nag yéen ñi nga xam ne taasu ne yéene topp ndogu yi ci Waarwi TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen leen jaajëfal te di sant bu baax te di leen gërëm te di leen xamal ne sunu war a gor mooy lépp loo xam ne liggéeyu maam Cheikh Rafal la fu njaboot ga nekk di ko fa def Waarwi TV dafay jóg ànd ak yéen ci ndigalal suñ Cheikh Jëmb Fall la ñuy ànd liggéey bi ndax macha allah demal na leen ko Cheikh Jëmb demal na leen ci buntu kër yi bëri ndax fukki buntu kër yeeg ñaar Waarwi bi fu nekk dem na fa te jii nag moom mooy waa kër sëñ Mbakke Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall murit jëfe ndigal ndax danoo namante woon di may wax saa su ne mooy wax saa bu nekk rek bu ndog yu jotee ren ji 2021 ku gis ni ko ni ko ni ko ni ko jullit yi defee ku gis ni ko taalibe yi defee ni ko gis ku gis njabootu maam Cheikh Rafal gi ni ko defee ci berne ak ci pas-pas ak ci yëg-yëg da nga xam ne Cheikh Ibra rek mooy li fi ne moo waral nag Cheikh Rafal mooy lamp bi nga xam ne moo doon nital si ah, bamb Bamba Xaadimu sool ndog yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon def ci jamono tey jamono dox ba 2021 képp koo xam ne ni ñëw nga fekke fii ji jamono danga xam ne liggéey yàlla rek moo wér liggéey Serigne Touba rek moo wér liggéey Cheikh Ibrahima Fall rek moo wér ndax maam Cheikh mu murid jëfe ndigal kon na ngeen topp maam ànd ak si cameraman bi saani sama càmmiñ ju baax ji ci kaddu gi soxna maam Jaara ñu dugg ci biir won leen njaboot sëñ Mbàkke Fall naka la ñuy defaree ndogu yi ak sikar si nga xam ne képp koo waxal rek dafa bàyyi xel si këru janatu si kër waa ko sëñ Mbàkke Fall kon nag saane nga topp ma ci biir خذها 大日轮。 taalibu sëñ Basiru Faal Xuraan bu ko bëgg lool xër ci moom mu defar ko fii defar ko fa nu jëm ëllëg di ñaan yéen ñi nga xay ñëw ngeen fiit ba jéggi seen i jéego rek ku ne xam na mbirum sëñ Basiru Faal Xuraan nu ca waay diwoo nang koy tooyee xib jéego yi ngeen jéego ba dikk fii rek sëñ Basiru Faal Xuraan làqu na waaye demut mi ngi fi fekk ngi seen Aliou Faal borom Mbawar Faal mu toogal ñu fi ci li sëñ Basiru Faal Xuraan joxoon na fan at yu tegal jaaru nu Mbàkke ndax fu ndigal li féete rek suñu neen dee leen tëdd fii di nelaw fi laay tëdd di nelaw bu ñu doon tëddal ne leen damay tëdd di nelaw ba nit ñi fekk ma ñu jox ma ndigal loola ba mu dem ñu ne ña ko yoroon ñoo ko yoraat ma ne leen man bi sëriñ bi demee xamoon nañ ne demoon naa yóbbaale woon na waaye téye ngeen ma na mu defan ba téye ma ba ma mën a liggéey Seera Faal ma ne ko bu ngeen ko doolee ba ma wér soxlawu ma ci sama yaram dara soxlawu ma ci sama poos dara may ñaan Aliou mii nga xam ne féetanu ak doomam yi nga xam ne nii taxawoon nañ di sëriñ soo xam ne tooguñu woyof toy lu ñuy def ñu ànd koog noonu ci waañi yëkkati liggéey bu rëy bi tekki sama loxo man moom dama sant sëñ Tuubaa sant Seex Rafaal sant waa kër maam Seex Rafaal ñi ndax du ma dara doonu ma dara. njaboot sëñ Mbacke Fall saa su di ci pas-pas. waaw rek ñu fas di ci dund di ci dund di wéy ci ndigal te lépp loo xam ne. dañ koy tere nun loola yàlla bu nu ca fekk yàlla bu nu sunu njaboot di ñaanal sëñ Aliou mii jëwriñam ji yàgg ndax ba mënuti toogu tan seetaan tey bii ma ne ànd naa noonu waa këram ànd ak noonu noonu laxasuwaayat takkuwaat weer ci ginnaawam di liggéey tey ñaan la mu yéene ci yoonu seerafaal bi ak doomam yii ci noonu loolu moom kër sëñ Bassirou Faxuraan gii gi dañuy yedd rek moom waaw yàlla dafa def ba mu toogee sëñ Modou Minta Fall jëwriñu Mbàkke sëñ Basiru Faaxuraan bu yeggee dafay doonub donga dina fa woon doxiinu donga dinu ci yar ci doonu donga ak tërbiwu nuy xool ca loola ba di kenn musta dox ba dégg koo xam ne ci kër sëñ Basiru Faaxuraan ndaw la lu ñu ne la mu def ci lu dul noona mbaa lu mu wax ci la ko sudul loola ba nga xaye lu ñu war a lijjanti lay doon loolu moom sëñ Basiru Faaxuraan nu ko fàggul nu daw ko bu baax ba nëgëy si sëñ Aliou yi muy toog noonee ñu yees loo woon toroxloo na takkoo na ni lan toroxloo ni lan yees loo takku topp ci Aliou Fall Mbaor mii tey ñaan mu yàgg fi tey ñaan njabootam gi Serigne Touba ak Cheikh Fall teg seen loxo ci seen kaw ba lu mu bëggee liggéey ci yoonu Cheikh Fall mii ak yoonu Serigne Mountakha mii mu matale loola eggale ko ci kàttaram ak mbaggam yéen seen taxawaay bi nag yal na yàgg te yal na sax te li ngeen di wut fii yal nañ ko maam si rafal baddi ba doyenee du ngeen taxawee fii ngeen xam cin li mooy la لا Fall yàlla na fa yàgg te andi na yàlla dolli leen ba yëngal leen yóbbu leen fi nga leen yóbbu kon doo yàlla na yàgg yàgg murid yi nga àndal sëriñ Cheikh Fall cokkee ngi nii nee na xolam sedd guy bu xolam seddee nag day mel ne xolum sëñ Aliou Fall sedd na ndax moo ko fi wutu ko làq ngërëmul jëwriñ di nga làq ngërëmul borom tool bi te moo jëwriñ ñi ñii toog kon Serigne Cheikh yaa njaboot gi murid yaa ngi ñaan ci dara yi turu yàlla wii saa borom gën laa yàggal ke dolli sa daa am nag murid boo xam ne xolam dafa sedd mu jooy lool woo mu ñëw mu lem mbaxane mi jox ma ko ni ma damaa bëggoon nga dimbali ma ngi jëmmi Cheikh Ibra laa jël addiya Serigne Cheikh Ndoye ma ne ko nan déglu tuuti ba mu ñaan ndax am loo xam ne boo koy def doo koy sorko sorko moom kat lim doon def ñii toog moo leen fi bàyyi. dox na di dox ba ma toog suñ Fallu mi indi addiyaam ñuy waaj a guddi Seex Ibra Faal gi ba mu ko joxee Seex Basiru Faal alxuraan Seex Basiru Faal alxuraan moo ni cey man ak Aliou Faal toppe taxut a ñàkk jiitu taxut a gën nan doy loo yàlla ca gëm ko lu yàlla dogal mu neex ñu lii la yàlla dogal ci Seydina Aliou sëñ Abdou Lahad nag moo noonu ku liggéey Sëriñ Tuubaa murid la war a fay sëñ Aliou dañ na lu ne ngir Cheikh Rafaal maamam dañ na lu ne ngir Cheikh si Faal alxuraan magam ju baax ja waaye tey murid dina ko fay bu fekkee loola yoon wi teg nga tegoo ko loo teg yoon yoon wi tegoo ko ci yoon wépp doole nit yoon waa ngi nii ñu déglu sëñ Cheikh Cokke nee xanaa kon mu nuyu ko mbooloo mi nee na santal ma leen bu baax nag nee na mi leen di gërëm it bu baax a baax nee li ma ta wax lépp wax naa ko ba noppi nee li ci des ñu fas yéene fi dina sunuy laxasaay jàpp la nu jàppoon nee na nin ko weesoo mu mel na gën nan ko ni toppe ba mu jeex tàkk te nee na loolu it am na ci yërmande rafet na ci njort it bu baax yaakaar na ko it ci yaakaar ju wér ne ni loola dina am amin nee jërë jëf na kon nan tàllal suñu loxo sëriñ bi ñaanal ñu waaw kon liñ ciy wax rek du bari xanaa santati rek di wax ne wàllu gasoil bi lu ngeen ci lool waaye rek du tee ñu fàttiwaat leen ko ndax fukki fan yi ci des kat bu nu amul gasoil oto yi du dem kon nag ñu waat rek kenn ku nekk na ko daan jëfe rek ñu jëfe ko ni ba gasoil bi mat nañ ko bëggee ba noppi ñu ngi leen di wax ne ba soogit ne suba day ñaanal ndeyam ne ko ñëpp dégg ñu ngi leen di fàttali leen tey jii leen waroon a jaayante waaye dafa xat ndax nii mu demee moo tax mu xat waaye nag nanu bàyyi xel ne maam seex day ñaar fukki fan yi la gisante woon ak Serigne Touba jox ko boppam ba mu wëlbi wëlbati ko koo xaye kii jox nañ la sa bopp tey maam seex Rahane Fall a tax ku joxe sa bopp tey maam Cheikh Rahane Fall tax kon tey jii lan waroon a feddliwaat suñu njaayante waaye dama bëgg kon bu subaa su fekkee mën nañ ko ñu jaayante waat tey su fekkee ne tàbb na nu dem ba suba ak jàmm ñu jaayante waat ndax jaayante gën mënut a ñàkk jaayante gën mënut a ñàkk ndax nii leen ko daan defee mu amee ñaar ki fan ak benn ñu jaayante waat feddil waat suñu njëbal ci Seex Ibra Faal nu gëm ko nag wóolu ko doyloo ko yaakaar ko di déglu nag kilifa yi nga xamante ne bii ñoom lañ teg suñu kanam lu ñu joxoñ nu def noonu jërë leen jëf fu ay nekk na tàllal kon fu ay na tàllal nu taatan xol yi tàllal loxo yi sëriñ bi ñaanal nu nu dellu ca daara ja bu subaa ak jàmm nu dellu si liggéey bi ci barke sëñ Mbàkke bisimilah murid amin amin amin amin ñu ngi nuyu ñëpp ci turu Serigne Aliou Fall mi xalifa Serigne Mbacke Fall ak ci tuy turu jëwriñam di Serigne Cheikh Jokke Fall di ñaanal Serigne Basir Fall alxaan suñu borom yokk ay leeram di nuyu mboolem njaboot Serigne Mbacke Fall gépp di leen sant di leen gërëm Serigne baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi mu ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp di ñaan suñu borom yokk xéwal yi yokk wërsëg wi ba liñ bëgg a liggéey si bi ñu mën ko weer wi nag day weer woo xam ne dafa bokk ci weer yi nga xam ne ah Cheikh Fall dañuy jotoon digal ci Sëriñ Tuubaa muy ay ndogu bay Faal war di ko ci togg képp kuy Baay Faal rek war na la ci kon dañoo ne ci ndigalul Sëriñ Tuubaa di ko di ko jëfe ndigal loolee nag dañoo fekk suñu maam ne ci suñuy bay ne ci ñun ñii di di sëriñ ñu ne ci kon nag ngeen xam ne li ñuy def def ndigal la ginnaaw loolu it ñu ngi sëñ baa ngi sàkku ci taalibe yëpp mu ngi soñ ñëpp ñi nga xam ne nii ah xëy na seenu doxin des na ci di sant ñi nga xam ne it seenu doxin mën na sëkk ci yooyu ci ci ci ndigal li ndax am ne ñoo xam ne booba ndigal tàmbalee ba tey suba ak ngoon noppalu woon la leen war lépp ña nga ca la leen man lañ lañ mën ña ngi koy jëm lañ mënu lañ mënu lañ mënu ña ngi jéem lañ mën ña ngi koy def ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp nag di soññ nag tax ñu gën a am ay taxawaay ndax des na ba léegi ndax tey la ñaar fukk ak benn kon des na juróom-ñeenti fan. juróom-ñeenti fan yi nag day mel na ñun ñun Baye Fall weeru koor bis bu ñëw rek bis ba ca topp dañuy bëgg a ful lañ defoon mu gën a yokk kon mel ne kon li ci kanam mooy ëpp doole la wéy kon nag na ñëpp soñwaat seen bopp te jaajuwaat te lambaat poche yi te fëggaat xol yi te jéem a waat ba sëñ bi am ni mu ko bëgg moom moo amee ko ndax comme de ne war nañoo yóbbu ay comité boole ci am million kon nag naxa nañu xam ne sëñ moom dencul dara sëñ bi kon ñun tam bu dencal dara sëñ bi waaw ñi ngi soññi ñëpp laa sëñ ñëpp di gërëm ñëpp kon nag ñu jox kàddu gi sëñ Mbacke Fall mi nga xam ne eh, mooy sama rakk te am baat ci kër gi moo wax ci ay kàddoom soññi taalibe yi ak murid yëpp jërë ngeen jëf baax na. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak saw sant di joxe sunu siyaar ci yow sunu kem kàttan mu mel ne wax ji war naa mën a yomb waaye mujj na jafe ndax ki jëkk a wax day sunu kilifa te gën noo xam li muy wax mu mel ne mën nañ cee bañ a fekk sax xëy na cër lañ mënut a delloo rek dafa mel ni li mu wax rek laay dëggal lu ni mel laay waxaat rek ndax ku ne yaa nga ca la nga yaakaar ka yaakaar julli yaakaar woor ma nga ca ka yaakaar leen ma nga ca ñun nag ñu yaakaar li nga xam ne li ñu ko tax a yaakaar ki waral julleeg woor yomb moo na ko bàyyee muy Sëñ Tuubaa moom lañ yaakaar tey muy lii ñu def nii liggéey sëñ Tuubaa bi bam na ko bàyyee nag ni la ko digale woon nu fas yéene nekk rek nag du nu tay du dam fas yéene dam fas daay di def suñu kem kàttan lanu mënul ñu di ko jéem la tax loolu mooy mooy suñu njariñ tey mooy sunu njariñ bu ëllëgee kenn ku ne la nga yaakaar njariñ ëllëg nag tey ak ëllëg nag sañ ka saa def sa kem kàttan ba tax loolu moo ñu yóbbee lii nuy def nii tey mu mel nag am nañu ci fit ñi mel nañ ci lool sawar ci ndax yàlla dafa dogal nun mënunoo làmb waaye ki mën a làmb dafa làmb ba dajal nu muy Sëriñ Tuubaa ba mu làmbee ba dajal jox na te ku fi yor lu wér moo ko jox lim nu jox na mu doy nu sukk nu doy loo ko amuñ ci lenn lu ñu sikk sàkk fas yéene nekk suñu kem kàttan rek muy liggéey bi ngeen fekk nu di ko def fii nag dafa bokk ci lenn bunti kër Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra day bànq day maanaam day guy guree goo xam ne bari nay bànqaas fii nag da ciy benn ci bànqaas yooyu yële muy kër Sëñ Mbàkke Fall moom maam Cheikh sëñ Bassirou alxuraan nekkoon fi nu ñaan ay yàlla yokk ay leeram taas ñu barkeem ki ñuy wax sëñ Aliou Fall ko fi moom it di wéyal la xam ne moom la doon def muy li ngeen fekk nu ko def muy togg ndog yi ah li ci des nag mooy taalibe yi sañ leen leen a soññ ndax noo suñuy jëriñ ginnaaw ay seen bokki ñu waaye am na ay jëriñ ci biir tool bi yàlla dogal na nattoo na noonu ay jëriñ kon nag jëriñ sañ naa soññim toppam ndax kat am na loo xam ne wóorul wérul jërul di def it nag ki nga xam ne yàlla dogal na nga bëgg lu baax foo ko def tëla nga gis ku ku toll ne Baye Fall ko xam ne day jël li nga xam ne moom nga ko jox ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Fall nga jox ko ku lu wér ne jox nga ko mu dox ba tàbbal ko jagaat ko ci loxo Serigne Touba nga di ko gis di ko dégg kooku nag yaa ci des waaye kooku mu wàccu naa yow du dëgg loolee nag moon dal tey jii li tax nu bëgg di ci soññ bi lii nu leen di woo dañu leen dem leen noo ñëw danoo dem jiitu leen ñu fekk ñu fekk ñu fa kon nag lii ñu leen di woo mooy li ñu yaakaar ñun seen i jëwriñ àddina moom lañ yaakaar àllaaxira ginnaaw moom lañ yaakaar àddina yaakaaru àllaaxira nag yéen ñi nga xam ne yéenee suñuy topp nag dëgg-dëgg mënuñu leen woo ci leen lu dul lii kon nag noo leen di soññ di leen ñaaxaat di ñaan ngeen gën a góor góorgóorlu dolli ci la ngeen doon góorgóorlu te it soññe daa mënta ñàkk tekkiwul da ngeen nekkul ci li ngeen war a nekk waaye soññe moo mënta ñàkk te it kat ngonk duréy ba weesu naan ci a toll soññe weesu ci yow ndax yoon wi ci boppam moo baaxoo soññee amul wàcc amul noppaliku fenn lañ ko yaakaar te yàlla na yéex muy foofee nu yaakaar am ngër am ak li ko jëf kon noo ngi soñ ñëpp comme ni ñu ko daan defee di ñëpp comme ni ñu ko daan defee di xamal ne noo fi tey ba suba incha nan ko daan defee fas kii ne nu ko raw bu noon na àbb doole sax dañu àbb doole ci sëñ Tuubaa jaral ko kon nag lii mooy xaat yi nga xam ne ah moom laa ci bëggoon a sof ndax dama laa wax ne la yombul te it warul ndax it dafa am nu muy doxee ginnaaw dafa am nu muy doxee moom yoon wi te ki waral doxi ni doon sëñ suñu maam di Seex Ibra Faal kon nun suñ ñoo wàcc yoon dañ ne ku suñ kuñ rafetee jàkkaat faat waxtu wër la waaye ñun dafa mel ne am na loo xam ne waruñu ndax ci nun ñi la ko yàlla jaarale muy sunu maam nu doon loole necca kon war nañoo xam bu baax ni ñu koy doxale mooy lan kilif téef ak kin yilif nuñ koy yilifee ak yilifee naka la wér yilifee moo tax nag nu war koo jàpp ak suñu fukki loxo te it nit amu fi lu ko gën nit rewu fi ci lu ko gën a gaaw kon moo tax nu fas yéene jàpp nag nit ñu ko bàkkee jagleel nu ko nu fas yéene téye noonu rek ngi jëmmi Sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom moom moo ko def ci mbaaxam ak euh, barkeb Cheikh Fall mi nga xam ne mooy sunu maam te yàlla feeñ ko ci loxam nu fas yéene téye nag fas ñu ci yéene xaar kenn li daal na nga noonu la fas yéene jàngale alxuraan noonu la fas yéene am doom ji nodd imaam noonu la fas yéene am lii nu Cheikh Fall te it ke fii ne kaay wax la nit amu fi lu nu ko gënal koo fi dégg ni di ko wax ab yaram ak i teggin na la wóor ne moom mbaar mi nooyam ak taalibe koo dégg ñu jiñ ko ko rek xamal ne yi ko jeex jeex ci ko gis mbaar la moo xam ne ay teggin la akuk teey akuk muñ akuk nangu akuk xam akuk dal akuk joxe kilifteef mbaar mi mu ko bu doon mbaar yi composé koo déggee jiñ ko mu manqué ci benn dese na ko loolu maa la ko wax fii kon nag noo ngi ko fas yéene téye comme ni ñu ko dénkee di ñaan yàlla suñu boom dimbali ci ma xam ne ku raw moo la dimbali ku am dimbal moo la dimbali te dañuy wax ne jàmbar am kuñ dimbali kon yàlla mi jagoo dimbali te du ko doyu ko dara te yor ci lu dul jeex yàlla nu dimbali ci lii nu bàyyil ndax amul lu moom te moom la fas yéene jàpp nu nit bëgg alalam rek bëggeen nu ko raw noonu kon yàlla na yàlla dimbali suñu taalibe gi sàmmal nu ko bañ di ko jàngale man ko di ko jàngale te bañ a sàggan ba kenn di fi ñëw dina ko jàngale barki seeraan fallam ba waa amin yaa rabbal yàlla na ko yàlla def ngeen di fekk te muy gën a yokk nag waaye nag jéegub dem ak dikk bu ci nekk yàlla na ko yàlla bindal yiw yéen nga xam ne yéen a ñëw ngir tasaare lii ndax ndimbal la ngi ci wet naka ndimbal li mooy ka nekk Ndakaar yëgul li xew am na bëgg am na xemem teef waaye yàlla jàppanduloo ko yooni mën naa mu toog ci saalam gis lu mel nii gis niñ ko waxee mu xam ko dégg ko ba liggéey bu defoon benn mën naa di fukk kon loolu ak jàppandal la kon nag yéen ko yàlla jaari seen loxo yàlla yàlla fayal nu leen noonu ñi nga xam ne noo nekk fi nekk lan ñuy jox yàlla nu yàlla teg nu ci yoon bañ tegal ko ñi nga xam ne ñoo ko joxe fan bëgg te ñu am ci ngërëm sëriñ la la Baye Fall gi ci waa kër sëñ Mbacke ñu togg suñu waajur suñu kilifa sëñ Ngunda Fall moom sëñ Bassirou Fall alxuraan na ngeen si daaw na sëñ Bassirou Fall nekkoon fa ñuy ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxoom waaye suñu waajur wu baax yi ñu fekk nag man na toogaay bi lool te mate ko ndax Serigne Touba Cheikh Rafal mboolem koo xam ne bokk nga ci njaboot gi rek saa su nekk rek day mat toogaay ba moo doonoon làmp bi nga xam ne moo doon nital yoon yi ñaanal bu baax a baax a baax bu fukki buntu kër yeeg ñaar yëpp nag demal nañ leen ca te Waarwi TV li ko war mu liggéey Serigne Touba Cheikh Rafal moo waroon te ñu leen toppal tey yi nag mooy fukki buntu yeeg ñaar yi nga xam ne mooy bunti maam Cheikh Rafal ñu jox suñu waay suñu waajur mu sànni ci ay kàddu tey la ñaar fan ak benn ci weeru koor wi di 2021 yan yàlla ñu fekk ko déwén incha allah toogaat beneen jotaay ci barke Sëriñ Tuubaa. waaw moom de xanaa doolu lay santaat baax rek ñoo ngi santaat yàlla suñu borom baax rek ci taxawaay bi nga xam ne suñu kilifa bàyyee nañ ko fi fa mu bàyyee foofu lañ jëlee waaye am nañ ci ànd nañ ci xel mu dal bu baax ma xam nañ ni bàyyil nañu fi dara te ñu fi bàyyi ñëpp maanaam nañ daa àndeek moom ci fabandoo ak yëkkateendoo ak dóorandoo yàlla dogal na lépp noonu lañ ko àndee ànd ak kilifa gi mu fi bàyyin muy sëñ Aliou Fall ñu ànd ak moom ci liggéeyum ndogu yi ànd euh, ak yàlla lépp jàppandi na lépp tege na ci yoon kon mu yàlla nañ ko sama borom àggaleel baax rek di doon kilifa gi ñu mën koo saytu ba àggale ko na mu ko bëggee woon. ñoo ngi sant nag mbooloo mépp nag ñu sant taalibe yi yëpp rek góor ñi ak jigéen ñëpp nag ñoo ngi sant ñëpp rek taxawaay moom rafet na. te ñëpp daal kenn ku ne bi weer wi teroog léegi amatoo soxla amatoo yitte kenn ku ne bàyyi nga sa soxla yëpp ak sa yitte yëpp ngir bëgg rek li ñu sëñ bi sant ci liggéey bi nu amee ko na ko sëriñ bi bëggee ànd nañ ko noonu nag kon nag noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp rek yàlla nañ fi saa moom àggale suñu borom nangul na ko ci barkeb sëriñ bi jërëjëf waaw ñu ngi leen di sant baa ci liggéey bi ngeen di liggéey di ko jëmale ci kër yi ndax kenn ku ci ne la ngay def ngeen fas yéene ñëpp xam ko ndax day taxit nit ñi taalib yi gën a xam li ñuy def lan la loolu ñu ngi leen ci sant baax di leen ci ñaan ak yokk saa moom defal leen ko te ngeen yokk ba yëg ko rajo bi yokk barke sa sa seen garaat sant lañ bu baax jërë ngeen jëf ba tey mbokk yi yéen ñu doon topp ci Waarwi TV lii leen jërilee woon janatu ndax janatu moom day pakk boo xam ne pàkk maam Cheikh Rafal la tey nag jàpp naa ne yéen ñëpp a kontaan ci Waarwi TV liggéey bi nga xam ne da koy liggéeyal yàlla di ko liggéeyal yonent bi di ko liggéeyal suñu maam maam Cheikh Rafal ñu eggal jotaay bi fii nag Sëriñ Bassirou Fall alxuraan yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkam fekk fi taawam bu baax bi mu mat ko lool te mate ko kon nag fii leen ñuy tàggoo te yéen di leen joxaat rendez-vous ci beneen jotaay incha allah ci barke Cheikh Rafal jërëjëf Cheikh Ibrahima. bi Fall